si daleen ak jàmm Tange Tandian daal di dévoiler ab secret boo xamante ni nag kenn xameewu ko ko woon moom Tange Tandian borom VIP people nga xamante ni nag boobu le site di dox ci wàllum pipol moom mooy administrateur ba daal di koy nag jiite ci benn audio boo xam ne dafa fuité mu doon daal di nag lëkkaloo di nag waxtaan ak ay nit moom mi daal di nag xamali ni Euh, ci internet bi sax moom mooy daal di alimenter la toile depuis publication ojo boobu la ci affaire Ousmane Sonko Adji saar nee na nag mi ngi nekk au cœur d'une polémique boo xamante ni nag euh, mooy fuite benn audio boo xam ne dañ ko ko daal di attribuer ci ojo bi Tange Tandian di dévoiler ay stratégie euh, yoo xamante ni daanaka nag yu mucc ayib la ngir daal di nag jéem a soutirer de l'argent ak ay ay personnalités yu pouvoir en place bi en l'occurrence ministre Abdoulaye Diouf Sarr Euh, directeur de la caisse de dépôt et de consignation Cheikh Ba ex député bii di Seydina Fall Bougazeli ak homme d'affaires bii di Baye Ciss nee na nag hésité wul benn yoon daal di traîner euh, euh, journaliste bi di Cheikh Yérim Seck nee na nag moom Cheikh Yérim Seck mooy mercenaire bi nga xamante ni nag daanaka dafa enrichir en faisant le sale boulot pour ay personnalité animateur bu leeral bi ratewul itam Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi nga xam daf ko considéré comme suite à son raliment au pouvoir moom Tange Tandian ci audio bi daal di xamle ni nag ne dañu toll ci jamono joo xam ne fii Sénégal soo bëggee daal di euh, nag puus euh, maanaam tàq jëppeet faw rek nga euh, daal di nag am noo xamante ni moom ngay daal di nag doxale nee na nag la koy firndeel mooy faaw rek nga daal di dugg ci politique ndax benn góor gu màgg moo ko ko waxoon ne ko nag euh, wàllum média fii Sénégal boo ci bëggee doxal da wax ci wàllum politique ndax nit yi looloo leen intéressé nee na ca la commencé di wax ci politique nee na nag stratégie bi nga xam ne moom lay doxal mooy euh, nit yi ñoo xamul rek waaye moom fa mu toog noonu nee na nag euh, ni muy def ba tedd njabootam tedd lay seet te ci naka mooy jaarale ko ci politiciens yi kum ci dégg sa information boo xam ne sax leeru ko wala sax mu fabriqué daal di la koy nag attribué marié euh, too jox ay say initial nga daal di xëy woo ko boo ko woowee nag mu wax la information bi ni nii la tëddee ku ci nekk bañ nga nag ñu daal di lay nag euh, muri li nga xamante ni nag moom mooy sa mbalaan bi nga nekkee euh, muy nag autorité ngaak muy boroom borom dara daraja ngaak kilifa nga député wala ministre nga buggoo kenn di xam nag sa face cachée muy naka ci wàllum phobie yi nekk itam ci wàllum homosexualité yeeg yu demee noonu wàllum trafic lépp bëri ci autorité activités yoo xam ne dañ ciy dox eh, moom Tange ne am na ay source nag yu eh, ci yooyee moo tax nag comme ci ku ko ci woo joxe sa initiative boo xëyee woo ko eh, mu daal di lay nag proposer nga daal di def loxo si poos si xënteeg moom teraanga mu daal di jël lépp bàyyi ko mu sedd nee na ba pare na sax parfois day sax daal di nag démentir yenn information yi nga xamante ni lu am la ngir rek beneen média peut-être wax ci dans l'avenir ndax moom boobaa fekk na poosam fees ba noppi ne nag ñu bëri ci ay